nekkal ñëpp mais bu njëkk nguur yi fi nekk depuis 1960 la RTS ne voulait jamais ouvrir ses portes à l'opposition pour la première fois ci nguuru président Bassirou Diomaye Diakhar Faye la RTS est devenue une télévision nationale léegi opposition bi ñoo fa ëpp lay émission sax la waa pouvoir mais loolu wax dëgg yàlla sénégalais yi nag wax leen ni ñun ak gars yi yamuñu c'est pas la même chose wax dëgg yàlla loolu mooy dëgg ñun ak ñoom yamuñu c'est pas la même chose nous ne sommes pas comparables c'est yàlla yàlla la ñun ni ñuy xalaate ci politique ak ñoom bokkul ñun ñëpp ku ci nekk bu ñu la joxee responsabilité dañ naa la li ñu la dénk man mii barki dem Ndiaye bi émission bi bi bi euh, euh, meetingu bi meetingu Kolda bi jeexee le premier ministre Ousmane Sonko woon ma daam foo jëm ma ne ko ah maa ngi xool de ndax du yegg ba Tamba mun ma demal liggéey <laughs> mun ma demal ñibbi Ndakaaru nga liggéey donc ñun li ñu gëm mooy ñu ne gars yi yamuñu. ñun ak gars yi yemuñu ñun dañoo gëm ni réew mi dañ ko war a defaraat réew mi dañ ko war a tegaat ci yoon kon nañ bàyyi caaxaan yi di ñu tëkkaleeg gars yi naan ay arrestation yi dafa bëri fii arrestation yi fi am c'est des arrestations yoo xam dañoo def njombe parce que taxaw saaga nit il faut ñu jàpp la mais kan nañ fi jàpp te deful dara loolu amul ala ko bu njëkk Macky Sall day jàpp ñoom defuñu dara maintenant Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall moom bu amoon mbokk daañu ne ko Ousmane Ismaïla wata wat Ousmane Ismaïla Madior Fall bu amoon i daan daañu ko Ismaïla wata wat Ismaïla non seulement li ngay wax noonu wax na ko mais dégg naa Ismaïla mu ni un ancien président de la République dafa war a am immunité éternelle mais wàllu kii fu mu ko jànge moo Ismaïla Madior Fall fu mu jànge loolu mu ni un ancien président la République dafa war am immunité éternelle maanaam moom lu mën a def ci àddunaam kenn du ko topp dara dara dara Ismaïla mi li mu wax noon fu mu ko jànge waa léegi Ismaïla bi muy wax loolu xanaa daa fàtte ñoom seen nguur ñoo fi tëj Hissène Habré di nguuru Macky Sall Hissène Habré nekk Sénégal ñu koy protéger ci nguuru Abdou Diouf ñu koy protéger Abdoulaye Wade ñëw di ko protéger di ko protéger ba dem comme Macky Sall amul benn personnalité ñu ne ko juger ko mu juger ko avant muy génn àdduna gis ngeen li ci ñëpp wax panafricanistes yëpp leen ci wax Macky Sall moo toroxal Hissène Habré ancien chef d'État ñëw làqatu Sénégal ci ku xam sunu aada ak sunu cosaan nga xam ne ñun ku fi ñëw dañ lay làq Hissène Habré lu mu def baax na baaxul loolu c'est un autre problème parce que enjeu ya ko jëlee Tchad ñun xam nañ ko y avait l'implication de la France et les enjeux géostratégiques loolu moo tax mu jógee Tchad bi mu demee ñàkk nguur gi ñëw du on dit pas qu'il est qu'il irréprochable mais bi ñëwee Sénégal Sénégal da koo làq te ñun kuy dóor doomam sax bu làqatoo ci kër bu demee ba koo foqati waa kër gi dañuy xeex moom boo doon dóor sa doom ba mu daw làqatu ci kër gi nga dendal boo ñàkkee kersa ba dem dugg sa kër gi ba nga roqat sa doom waa kër gi dañuy taxaw xeex ak yow kon ñun dañoo taxaw euh, làq Hissène Habré ancien chef d'état nguurug Ismaïla major Fall ak Macky Sall dem atte ko jaay ko doole ñu tëj ko ba pare tey Ismaïla Madior Fall moomun tey nee na ab président bu bàyyee nguur gi day am immunité à vie jarul ma ci tontu tontu wax ci tontu na boppam beneen bi nag waaw kooku euh, jarut a tontu sax parce que kooku moom wax dëgg yàlla njariñam bëriwul quoi kooku moom ma ci dugg léegi bu ñu amee beneen question ñu dugg ci. d'accord donc euh, way waaw maa lay fay oui waa jërëjëf ah, Univers Info rafetlu naa sa question gis nga waajooju man wax dëgg yàlla dama jàpp ne bu ma dee wax ci moom sax dama koy may doole te man wax dëgg yàlla gisuma njariñ lu tax ma war a wax ci moom parce que ñun ñëpp mën nañoo d'accord ni wax dëgg yàlla waajooñ nag du suñu adversaire parce que koo xam ne déglu leen li ma leen di wax de parce que acharnement mooy singli mooy singli du loolu nga wax singli waa mais booy singli nit kay day am lu mu la yàqal yow koo xam ne élection yi mu wax yëpp ni ñu ko demal wuti parrainage mënta am parrainage élection yi mu bëggoon a dem yëpp mënta am parrainage mais ku am mënta am parrainage te ña amoon parenage déglu leen li ma leen di wax de pour wan leen ni kooku il ne représente absolument rien maanaam moom dañuy dem élection candidat yëpp départandoo di wut parrainage moom mënta am parrainage mais même ña amoon parrainage dañoo dem am zéro virgule kon moom ma am mënta am parenage bu demoon lu muy am est-ce que dégg ngeen wax ji est-ce que dégg ngeen wax ji dama ni dañuy dem élection moom muy dem wuti parrainage ak i moroomam mënta am parrainage ci élection yu bari mësta bokk élection parce que parrainage la mënta jàll mais ña mënoon a jàll parenage bañ demee élection zéro virgule lañu am waaw moom mi mënta jàll parrainage bu demoon élection kon lu muy am kooku représenté wu lu bari ba ñuy acharné wu ci moom yàqaluñu dara parce que il ne représente absolument rien man bi ñu ko jàppee mu nekk Tamba mu nekk Kolda man damaa toog di ñaan Tamba la nekkoon may ñaan may ñaan pour ñu bàyyi ko xam lu ma doon bañ comme moom élection yi fi am yëpp day wuti naa du am ba ca fin ba du bokk mu wër di wax fépp ni moom bu ñu ko bàyyoon mu bokk day jaal day day day day day gañe léegi élection yi bu ñëw rek bu ñu ko nee wutal pare naa du am ba du bokk. bii élection bu ñu ko jàppee kon dañ koy may prétexte moo taxoon man ma bëgg mu bokk alhamdulilah bokk na non seulement bokk na waaye ma nga ca ab coalition sax boo xam si moom ñeneen a fa nekk kon coalition war naa am doole maanaam bu dee am na doole ak ñeneen ñi ñëw ñëpp ñu boole seen doole kon coalition boobu élection yii ñu jëm dafa war a wane doole ndaxte moom ma nga fa mais nag leen ba le 17 novembre incha allah ci ngeen di xam ne lépp dëgg la nga waa ji doo dara et puis dégg naa ko démb ci conférence de presse am xaw moom li mu war a def mooy bu amee ay mbokk moom it dañ ko war a wax ni alal jooju muy wax ni am na ko depuis des années et des années na ci na ci comp dem wuti formation dem ñu jàngalaat ko mu jàngaat tuuti yokk xam-xamam maanaam xam-xamam moo néew boo ko déggee muy wax ci niveau bi muy waxee dangay xam ni kii ndeysaan niveau bi mu nekk dafa faible démb maa ngi ko dégg mu naan un pôle d'avocat on ne dit pas un pôle d'avocats avocat du duñu pôle c'est un pool un pool d'avocats mu ne un pôle d'avocats xool c'est-à-dire xàmmeewul koo xam ne xàmmeewoo pôle ak pool maanaam kooku niveau boobu ñun ñu taxaw naan dañ koy tontu xam nga loolu affaire yabaate la quoi voilà donc euh, boo bëggee dëgg-dëgg daal il ne représente absolument rien il ne représente absolument rien il fait de l'agitation xam nga moom dafa jàpp ni Ousmane Sonko li ko may doole mooy leen ko doon tëj ak tijji xam nga lu fàtte Ousmane Sonko du looloo ko may doole de xam Ousmane Sonko lu ko may doole du tëj ak tijji bi au contraire loolu dafa ñëw firndeel li Sénégalais yi gëm ci moom Ousmane Sonko daf nuy bërët ci politique wane ne man sama politique dama koy lal ci xam-xam damay bind ay livres damay dénoncer ay situation ba noppi di joxe ay firnde di dem ci télé yi di wane ne il est compétent léegi sénégalais di ko identifier di wax ne mais regardez ce jeune la mais il est bon maanaam dafa wane boppam par rapport à sa compétence régime bi gis ni kii non seulement mi nga wane compétence mais mi ngi wane éthique mi ngi wane mi ngi wane patriotisme ñoo ñu ni kii bu ñu ko bàyyee mu dem nar na convaincre peuple bi kon nañ ko commencé kar nañ ko commencé kar pour du dem kar yooyu ñu ko doon kar nag pour du dem muy rëcc di di di di ñoom senegal yi di may kii ñun nañ ko dooleel may may ko doole nañ topp ci ginnaawam mais Bougane moom dañu bëreet rek jaayu reewande moom jaayul leneen de dañu bëreet di jaay reewande kon nag kooku du suñu adversaire c'est-à-dire que ku koy digal daal nee ko yoon wi Ousmane Sonko jaar ba yegg fi mu àgg nii wuute na lool ak li muy def waaw sol say chemise yóbbu la comme ni ko Sonko daan defe ak sóor sa euh, casquette viser ko ba mu saf di sonko sonkul ku yaakaar ne loolu moo lay may doole da ngay nax sa bopp dama ne ku koy digal nee ko na bàyyi sonko sonkolu bi te tracé yoonu boppam dem mais tant que mi ngi sonko sonkolu lu sonko def mu jéem ko def dama la du dem lii mooy dëgg ñun on a rien contre attention nous sommes en démocratie ñun li ñu bëgg e sonko laa di sonko dafa bëgg opposition bu am doole na dem opposé wu ñu bàyyi ko mu opposé wu mu demander à à marcher demander à faire des sitting dem woo ay mbooloom dégg naa ko mu naan bi ma génnee mbooloo mu bari di ma tàllalay loxo ban mbooloo mu baree ko tàllal loxo mu ne bi mu génnee ci prison bi mbooloo mu bareek may tàllal loxo ban mbooloo xanaa dans sa donc amul benn mbooloo bu ko tàllal loxo moom li muy rêvé mooy li Ousmane Sonko amoon ci opposition bi loolu lay rêvé loolu nag ku koy digal. nee ko liggéey moo koy maye. am jaar-jaar bu Ousmane Sonko am moo tax mu amoon mbooloo moom kon su bëggee am loolu moom nee leen ko mu dem liggéeyi te bàyyi reewande gi reewandeem gi jëmul fen ci kaso bu dong lay mujj.